alo ALOSIPS dugg na fii donc ci intervention bi mu xamal ñu ne donc moom dem na Europe naam des na fa mais am na lu ko metti par rapport ak ñenn ñi li ñuy wax yenn commentaires yi parce que mbir boo ko xamul ni nga ciy waxee da nga ko da nga ko war a xam parce que moom ALOSIPS nee na kuy daw Europe d'habitude fa ngay bàyyi say bagage fa ngay bàyyi sa valise fa ngay bàyyi say kii nee na moom dafa jël ay valises jël ay bagages dem tranquillement ah. nañu ko génne ci ñi naan dañu dafa daw benn ñaareel bi nee na moom mu jóge ci orchestre Sidy Diop wàññilu ko dara Sidy Diop yokkalu ko dara Sidy mën na continuer def musique am et mi ngi koy ñaanal mu am carrière bu nice mais aussi wax na ba cité yenn tur yi genre comme ku ci mel ni Adji Mass nee na gis na ko mu wax wax wax ko wax boo xam ne naqarlu na ko démb ci plateau bi Euh, def ay révélation par rapport ak moom nekkinam foofu nga xamante ne bii aussi mooy bitim réew euh, en tout cas Alou Ships démb waxam jooju euh, mën nañ ci sukkandiku aussi yeneen missions yi peut-être amuñu ay information par rapport ak ñoom mais ku ci mel ni ay ñoom njàpp ñenn ñi nga xamante ne bii ñi ngi wax naan njàpp dina ñëwaatam du ñëw mais li wérte wóor changé na tur <laughs> li wérte wóor ko jàpp li wérte mooy artiste bu fekkee da ànd ak ay nit tukki buy ñibbisi da ngeen war a ñibbisi waa leen do waaw Ndeye Ndiaye Banaya ñibbisi na jëndal yaayam oor donc xam nga mooy loolu da ngeen war a demandoo da ngeen war a ñëwandoo mais le fait que nga fay des ñu naan di nga ñëw ak doo ñëw rek mooy que ni. dem am na. waaw mais waajooju di wax noonu nga ne mooy allo lan. allo Sips. allo Sips. mais Ndeye d' abord avant avant. Ndeye waaw ngeen maa ngi koy jégalu Sénégal yëpp parce que man moom comme damaa weex donc. waaw man damaa weex donc. damaa weex waaw. wax. ñaw aba aba gasa non damaa weex tunk waaye ma toog rek gàpp sama njàmbur waxtaan ci nga ci weex tunk man waaw nga dama def sama émission di jaay samay diw man waaw defaluma kenn live mhm. sama bopp laa defal live di jaay sama produit ci sama boutique TikTok xaw ma ci lu bari mhm. dañ ma doon jëlal nit ñi sax dañ ma leen di jëlal bi ñuy jël ndekk boogaa jëlaale na guitariste bi nu mu tuddati. guitariste bi waaw. Daawda. Mm-hmm. pourtant bi mu nee man la Daawda sama fit bi rës la def te maa ngi ko koy wax sax ci live bi comprendre nga. Mm-hmm. mais après dañu dagg bu yónnee ko Bamba di wax na Ndeye génn suñu problème te man samay nekk si dugalu dugaluma Daawda barke Cheikhul dugalu ma ko sama live Daawda di expliquer man sama yoon nekku ci moo tax duma ci. ñaanati nee na génn suñu problème. noonu na Ndeye Gueye mais léegi chroniqueuse la yow chroniqueuse. non dafa daan Ndeye Gueye moo dugal Daouda pour Daouda di expliquer barke Cheikhul Khadim dugaluma Daouda bugguma coow taluma ko man gor laa damaa am lu may jomb Daouda xam nga la moo taxoon mu dugg sama live parce que ñoom dama dal seen kaw bi affaire bi amee. mi leen waruñu woon a toog foofu parce que li ñu def rafetul te Sidi day téye musique Sénégal ëllëg lii maa ko wax. Mhm. pourtant dañ kon méttitlu ñu bari dañu woo ay nit day géey warul woon waru woon dal suñu ko parce que xamul ndax sama yoon daf ci nekk xaw ma toog sama yoon nekk ci moo tax bugguma dugg ci problème boobu su ma sañoon sax duñ ko dugal ci kaay ah moom xanaa kañ yow da nga ciy wax wala nga bañ ci wax parce que tamit nga bañ ci wax aussi euh, tey wala nga wax ci parce que chroniqueuse nga am nga droit analyser les faits ni nga ko gisee nga waxee ko noonu cest di tey yow Ndeye Gueye en tant que artiste bi seq ay relation ak euh, sa moroomu artiste yi yow man maa ci génn nii <laughs> bokkut ak ah Ndeye Gueye bi toog nii pour analyser les faits parce que si. man xam nga rek man c'est que sama cas dafa xaw a metti man sama cas dafa metti yow doo comprendre mais man sama cas dafa metti man sama cas dafa metti damay mal placé pour may pour may wax ci ci yooyu quoi xam nga te waxuma ci dara nag lu ma ci warul wax. man damay chroniquer rek wax sama xalaat rek joxe sama xalaat. mais après fi ñu koy gisee. ak yow fa ngay waxee du doon benn. ok ndéggee yow dem nga ci kaaw bi lu baree bari macha allah dem nga tukki lu bari est-ce que mës na la arrivé benn yoon nga dem xalaat ne dama war a toog. non man du ma toog ñaar yi dinaa la ko waxal. da mhm. ñett benn bugguma toog Europe je peux pas vivre en Europe parce que li ma bëgg Sénégal rek la am. ok comprendre nga benn damaa am ay rakk. Mhm. am ay mag. Mhm. te feebar gaaw na. dee gaaw na sa mag dara mën na ko dal nga bëgg ñëw wala sa rakk dara mën ko dal nga bëgg a ñëw doo ko mën comprendre nga mhm. sa papa nekk mag te mag ku ne xam na ni yaramam du neex mën yooyu laay sóoraale ba tax na duma bëgg toog bitim réew ma tout le temps rek damay xalaat famille bi ak njaboot bi comprendre nga. mosoo tukki ñu ne la dawal wala. non non mosul am. mais àndoon nga ak ay fecckat ñu dem toog am nga sa ay nawle fecckat yu dem toog foofu. si bari na. kon mhm. am na tournée bu ñu Youssou Ndour yóbbu woon am na ñu toog. am na benn fecckatu Fatou Law bi aussi Fatou wala Fatou li pande na koo wax ne dafa dem daf ko yóbbu Europe mu toog foofu genre. Ami Dieng waaw. Ah. man daal xam naa ni li ma la mën a wax wax la ko mooy Ami dañuy déggante si bis yàlla sàkk. dañuy déggante bis Ami Dieng waaw Ami bu yàlla sàkk fàttali mooy ki ñuy wax Ami Dieng yaay Maas Ndiaye wala du moom waaw defe naa moom la de Ami yaay Maas Ndiaye Ami Dieng yaay Maas dara weesu dara mooy moom jëkkëram Ndiaye la sant moom it yor na ñetti salon Espagne Espagne waaw Madrid ok fan yee passé woon na fi ay conteneur ba ma filmé ko sax man mi ah parce que parce que parce que gis nga gis nga gis nga am na ñoo xam ne buñ toogee yàqaluñu artiste bi artiste su bëggee tukki war na mën a tukkiwaat ci yoon war na mën a tukkiwaat vraiment. Mm-hmm. mais liggéey bi ak looloo ànd quoi waaw yàlla yàlla def daal li gën chaque jour rek. amiin waay moog loolu loolu loo ànd mais yow en tout cas en tout cas mosoo xalaat benn yoon franchement toog Europe. wax man maa bëggul toog Europe di fa vivre man maa ko bëggul man. Mhm. su ma ko bëggoon kay def naa ko bu yàgg. mais bëgguma toog Europe quoi man naay dem ak a ñëw rek quoi xam nga ah James. waaw dem ak a ñëw. ayca Jimbori ma laaj la ci question boobu yow tam. Ah? vraiment nga wax ñu ci sa xalaat. ñu ñëw fii di mbaxal ak di soos. di mbaxal ak di soos waaw ak a fiiriir. Ah. ak a misu ak defari teint. waaw defar teint maroon. <laughs> Europe teint bi du jar de waaw. non mais kii euh, naka Bamba. Hmm. sa booy boobu nga ne dafa dugg di naqarlu affaire yooyu. waaw Aliou la tudd foofu day font. ok ku bari caaxaan la xam nga lu tax. Hmm. yaa ngi dégg. yow nga daw di bañ ku la wax danga daw yaa ngi dégg yaa ngi dégg waaw xoola wuy ma dafa daw kaa ma wax la benn arab léegi ban façon daw nga bëgg a waxtaan ci Europe Europe képp koo gis mu ne fa ah, dafa daw xam nga loolu ma ni koo gis mu nekk Europe ah, dafa daw dafa dawin yee wuute nag li nga wax waar de. déglu ma bu baax kan nga gis muy jóge fii ñu defal ko visa dix ans. waaw am na. gars yi ne daa daa. non danga ma déglu dama lay wax rek dama lay wax ci affaire yi kii waa. Mm-hmm. kan nga gis mu jóge fii ci Sénégal di dem ñu defal ko visa dix ans amul trois mois lañ lay defal nga lan ci dëkk ba di taxawaalu ba yori kayit am na wala amul. mais dawin yi dafa uute ñee dañuy dem fay ay millions pour dem Europe même booy fay ay millions visa bi cinq mois trois mois la yam yaa ngi dégg. waaw waaw waa waxin la ñooñu ñu Europe ñoo nga fa gis yépp ñu daw lañ léegi dama lay wax dawin bii nag dafa xaw a uute ñoom ñii ñii nii ñii gaa yi ak ni ma gisee man Sidi Diop yaa ngi dégg Sidi Diop est-ce xam nga Sidi. heure bii dafa waroon a fekk mu ñuy bégal ñu naan magam bu fi jógee Sidi moo ciy tegu mais yoon woowu lañ ko yàqal xam nga loolu est xam nga Sidi heure bii dañ doon wax ni bu ñu amul waali dañ doon def contrat wu boo mënul am waali jëlal siidi moo waroon a tegu mais yoon woowu lañ ko yàqal xam nga nu mu yàqoo yaa ngi dégg ci ci parce que Sidi Diop yaa ngi dégg ci wax la tolloo nu mu toll nii mais du ci ay way yaa ma laaj ah, bul ma ne déet yaa ma laaj ah. yaa ngi dégg ku mën a way la mais déglul mm-hmm. de sa déglul ma wax la mm-hmm. ana Pape Diouf génnewul kaset ana Wally Seck génnewul kaset mm-hmm. ana Youssou Ndour génnewul kaset ana kasetu Sidi yow coowuñu sa kaset xanaa di coow ci ay coow yu ndaw léegi ma wax la benn affaire léegi Sidi ma wax la dara. ana an ana ana daawam. ku mel ni kan Omaro. yaa awa jëlal ma yaa awa rek man du jël ñi si des. yaa awa ana yaa awa rasul. ana ana ana waxal. kon ñee bu ñu dawee dañuy mottali ji dañuy mottali daw gi rek mais daw gi fii la commencé. fa la daw ah, ñooñu fi nekk zéro daw la. yaa ngi dégg non wa dama ni ñi nekk zéro mètre daw la yaa ngi dégg yaa ma laajan ah, man damay wax rek xoola tey Sidi su ma ko doon digal nii nekk pour dellu si musique am hmm. yaa ngi dégg xoola xam nga lan laa koy digal man dama koy digal ma ne ko Sidi fexeel ñi ñi nga xam ni démb ñoo la encadré nga fexe ñu dellu si parce que ndon ndon ndongoloo mii bu bu leen ndong gën a gore jili ñang bokkul ak ndongo dara mu ngi nii di ko defal lu ne du dëgg léegi nag nit boo àndeek moom ci yenn àndin yi yaa ngi dégg day doy waar xam nga promoteur ak label xam nga lu ñu mën ñoom engagé la coow yi ci ndaw yi ci xew artiste bi moo koy def c'est que ñoom xoola ma wax la benn affaire seen waj-waj dafa xaw a bari ok seen waj-waj bari na de torop waxee ma ko waxu dara de mais Sidi xoola ñun dañoo bëgg siidi Diop mu yàlla defal ko jàmm ak salaam ba musique bi fi mu war a taxaw mu taxaw fa parce que bu fa taxawee suñu fierté la ñun mais boo bëggee taxaw foofu paa nii xoola bu bu ma àndoon ak moom gars yi daw dinaa dawal beneen grandeur bu dul bii hmm. waaw wax yi dina mujjee doon seen waxu bopp ñoom bële paase biñ ko fi njëkkee wax dama ne leen um ñi daw umpante wuñu loolu laa fi waxoon de booy bi xam nga ba ma ko waxee am na ku ko doon dindi léegi booy bee ko leeral nii léegi moom bu dawul lan la def ba pare ma wax la dara musicien dañuy wax ne waaw di jóob dañuy ànd ak moom muy lekk di ñu bàyyi waaw du ñu jox nangam nangam xoola lu waay nangul teg teg ko ko dagan na xoola loolu yaa ko nangu même bu ñu demee ba Europe nga ne kii bu ma demee du ma jox dara wor la wor da nga wor da nga wor laa wax ak ku la jàppale nag workat la ki lay jàppale sax workat la. mooy yow mi daw laa wax ak ki lay jàppale naan la waaw boo dellu see du la jox lim la war a jox yow yow xoola ki la koy encouragé gëmul yàlla yow workat nga gëm yàlla xam nga fu mu nekk même bul gis nga Europe googu bu fekkente ne ñoom dem nañ fa ba jël fa xaalis tekki fa am fa dara même bu leen siidi yóbbul woon danañ fa dem yàlla tudd na ko. xanaa am loo ma wax la dara bamba exemple waxin la nag xoola boo boo leboon banque exemple sa jabar jox dem nga jox ci sa jabar mu dem marché togg ba mu neex boo lekkee ba suur looy wax lan ngay wax. non da non ñun nag dama bëgg waxtaan bi yéen laay waxal man kese du ma wax. boo lekkee ba wax alhamdulilah. waroo wax alhamdulilah bisimilah yi nga war a wax tàmbali ngaa lekk te fayagoo xamoo police nga jomam déet <laughs> léegi da nga daw ah? da nga daw da nga yaakaar ni daw bi moo lay arrangé léegi daw bi siiw yaa ngi dégg est-ce que ñenn ñi wax jig na leen encore tamit ah, bu fekkee da nga daw da fay sa micro. seenu nga benn affaire. Mhm. lu coow lu bari bari Sidy génn déggoo ko mu génn. ba dem joué na spectacle fii soirée Afrima moo yeneen feccikat. mais du ko yàqal dara. non mais mais. yàqaluñ ko dara de mbaa xam nga loolu. xam nga yéen. ah sama xalaat day gën a développé di dem ci kaw. Ah, mais yàqaluñ ko dara. Sénégal talent yi bari na fi tamit quoi franchement tëggkat yeeg guitare. Eh, si am na guitar koo gis am na ku ko supérieur. àddina de bu tëddee woon noonu kenn du la jël nga. waaw mais mais tamit. yaa ngi dégg li ko war def na ko. liggéey moo ay rakamam ay rakam. dem jot mu ànd ak ñoom dem. ñoom ñu sentir toog moom mu sentir ñibbiseeg ñi mu liggéey seen liggéey si Sénégal loolu la rek amul leneen. bamba wala. yéen benn que tamit kenn ku nekk boo xeebee ñu lay fay boo gisee musicien bi liñ koy may nga teg ci sa bët waykat bi loolu sa wërsëgam la. parce que nit ñee koy bëgg di ko may du dëgg nañ waxante dëgg rek. xam nga kii xamala mooy problème ah dañ naan ko waxal du wax. mu baax xaaral mu bàyyi ba ngay wax muy galgal ci li ngay wax. non xaaral xaaral man amalu na moo àq man man juma fu man. yaa ngi dégg non danga may déglu rek danga may déglu non man du yow yaay tàggatoo palaato bi yaa ngi dégg booy dem nga dem xoola yéen da ngeen di juum xoola déglu ma Bamba yéen da ngeen di juum juum bu ngand léeg-léeg da ngeen naan artiste bi. pour moom ba tey déggoo ko mu ŋaang xam nga da ngeen siy juum xam artiste fi muy waxee yow doo ko dégg. waaw kii wér na tamit. non laaj ma ko. fan lay waxee. fan lay fan lay waxee. munoo boole di mbatatati booleeg di wax réaction artiste bi la ñuy xool. mais moom sa réaction voilà non danga may déglu am na temps noo xam nga man léeg-léeg xam nga man lu tax feeling dakaar léeg-léeg ma xaw a mer quoi. meral dañ laa faal non xaaral tuuti ma wax danga may déglu ma wax la danga may ma wax la. day am benn wax ma wax ko bu yàgg ñu ñëwaat toll ci te duñ jël foofu repère xam ko nit ki suy wax dangeen koy date di xam wax ji lii la. voilà émission wu ma damay jàngale bañu ma kenn. Mhm. ma wax la dara. Mhm. dañoo toog fii benn waykat daani waykat boobu dañuy dem kër di waykat boobu jënd dafa patt ñëw ñaari nit di xuloo yaa ngi dégg. ñaari nit du xuloo Ousmane Sonko way orogan uppal asamaan ba jant leer ma janoog satalaay kële tontu ko yaa ngi dégg tontu ko ci journaliste ñaari wax yi ku ko wax waykat bee ko wax ku wax wax bale Sonko di way du waykat bi kële wuy ma ñaari wax yëpp Youssou Ndour a ko wax waxkat yow tamit waykat bi mi ngi wax yow yaa ko koy waxal xoola man su ma suñ defee coronique ba ma dem suñ daje woon si mbedd boo doon waxaat wax yi du ma wax parce que yow yaa ngi koy wax su ma waxandoog yow nan lay amee sens yaa ngi dégg xoola dama bëgg ñu muus si sóobiis Sidi Diop kenn yéenewu ko dara gaayale liñ def di amul luñ koy topp dont danga nga man maa ni ana àndi daawam maa ko laaj dégg nga gaayale tamit daw bi daw boobu ñu daw yaa ngi dégg daw boobu ñu daw yaa ngi may déglu daw boobu ñu daw def nañ lu bon parce que dafa am ñu si waxaale bi ma nekkee ci moom day tëgg jël xaalisam denc du ma jox fu laay jaay Dakar wala coppati jeexal ko su ma doon ñëw Feeling Dakar xool ni yéen li li may def ak li ngeen may jox arrangé wu ma ana toog sama kër. Ah, waxal bi may ñëw ndax dama ñëw ne di saraxu pour ñu jël ma dañ ma xool ma dem Diop daf ma xool xam ne mun naa ko apporter dara mu jël ma. wala boog ma ñëw nag ci jël bi ma jël ma jëmbat ful la fayda am na am na wala amut ak léeg-léeg ñenn ñi tamit nee nañ waa am na si artistes yoo xam ne sii di da leen di tong si kaw seen affaire yooyu xoola li nga wane li nga wane la lay def boo ñëwee yam ci tëgg kese yaa ngi dégg est sii di dina la tong waxal jiite orchestre moomub dëkk taxul ku wopp nga suul te deewul am na wala amul jiite ma man lu tax nga yem ma de mais dafa am loo xam ne boo ko defee ci musique xanaa xam loo soo bis ak ak aar Bamba day lekk personnalité ba mu jeex te yéen am na ñoo xam ne yéen a ci topp di wax yéen journaliste yi. xanaa xam la wax est-ce que xam nga am na ñoo xam ne ñu bëri ci ci aar seen wax amatul effet est-ce que xam nga loolu. Mm-hmm. voilà léeg-léeg léeg-léeg mun naay doog a ñëw sama wax di def effet am na réaction yoo xam ne su ma ko dee def day dem ba sama wax dootul am effet. léegi wax bu am effet ak bu amul effet xaaral ma ma tënkal la ko mun xoola mun naa laa saaga ndey nga xeex ak man ndey gay saaga la ndey doo xeex ak moom parce que ñun ñaar ki si waxam def effet ci yow moo la naqari mooy jam xol bi. ok am na ñu xam ni seeni way defatul effet seen réaction defatul effet xam nga lu tax defatul effet ah ba ah Bamba parce que musique la kenn dul tënk ci coow. ok you mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. loolu laa lay wax nii musicien bi nag buñ ko bëggee yóbbu ci coow moom moo waral a régler am daw yàgg na fi waxal rek mais di daw gars yi di di di xëtt ay ay secret yoo xam ni te secret ay vie privée yoo xam ni loolu baaxul ñun yéenewuñu sii di jóob pour orchestre di tas sii di di toog di bañ a way sii di bu ñu sañoon day way comme nit Waly sekk di woyee parce que tey jii relève yi ñoom la mais dañuy toog fii ñu conseillé ko ne ko Sidi lii du nii nii la nii la nii la boo yooyu daw tamit xoola ñoom est-ce que xalaat nañ yal na yàlla yërëm abi fay yal na yaa ngi dégg ci si ah, si biir suuf est-ce que ñoom war ñu def seen xel ni war nañ mën a donn abi Faye ak Jimi wala Jimi waaw léegi Jimi bu dawoon ak Habib est-ce que dinañ indi musique fii. est-ce que est-ce que gis nañu jimi kër gi mu am macha allah. waaw lo non dew foofu sax mais. mais liggéeyal bu mu liggéeyal Sénégal. gëm ne aar aar bi nga ne mën na la teral. non mais xam nga réew nan lañu koy defaree te Sénégal duñ gaaw a defar loolu même yonent bi dafa ne kenn ku si nekk li nga mën defal loolu ñëpp defandoo li ñu mën bu ko defee réew moomu day avancer. bàmba sa li ngay def nii ak li may def ak li kii di def moom la ñuy indi pour ñaap pour ñëpp ci Feeling dakaar pour mu dem am na wala amut. mais boo bàyyee sa rôle wala ma bàyyi sama rôle rek yaa quelque chose. ayca du dëgg. Euh, ku nekk daal da ngaa doon parce que Ndongo dama daan dégg si moom wax dama na boo kii ndéygay dañ ma indi fay ma may wax. Ah. ñëw ma fi di wax fay ñu ma de. dañ ma indi fii ma dem Diop dafa ma indi pour ma wax ñu fay ma. du ma noppi de damay wax bu ma ñibbee sama kër nag ma noppi dama ne Ndongo dafa ne dafa tëdd ruumu yaayam mu déglu Youssou nduur nee na bi mu naan. waa kay mu motivé ko est-ce que mënul woon dem tukki. mais dafa jël bëtam teg ko si Youssou nduur ba ñëw. léegi boo dawee yow est-ce que di nga doon Jimi Mbaye mbaa nga doon Habib Faye ma tëdd dafa ni liggéey na pour Habib moom boo ko woon fu mu tëdd. pour moom liggéey na ba am na ñu ko war a roy remplacer ko fii mais yow nga daw waaw yow nga daw yow yow yow boo dawee yow ñoom Habib ñoom Jimi bàyyi kan moo leen di remplacer ah dañu xam ne ah, musique la la la musique bien sûr euh... en tout cas elle relève la doo ko yàkkamti. aar du biir day xëy wasin la musique ne ne nourrit pas mais bien ah. ñu ci nekk di tedd macha di sant yàlla bu baax. di defar seen réew ay guitaristes ay marinistes yoo xamante ne. waaw tey wala comme Cheikh Tidiane Tall. Ah, voilà na ko yàlla yërëm. Euh, donc nañu nañu gën a gëmaat loolu wala ñëpp di daw ñëpp di